wa naaudu billahi min shururi anfusina wa sayyiaati acmalina man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala haadiya lah wasalaatu wasalaamu ala almabxuusi rahmatan lilaalamin sayidina muhammad wa ala alihi wa saxbihi wattaabiciina lahum bi ixsaanin ila yowmi ddin wa ashhadu an laa ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayidana muhammadan sal allahu taala alayhi wa sallam abduhu wa rasuluh amma baad أيها الإخوة في الجمعة الماضية تحدثنا عن أهمية أداء الزكاة وعلى من تجب الزكاة واليوم نتحدث عن أنواع المال التي تجب فيه الزكاة والنساب فيه وشروط النساب تجب الزكاة في الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض التجارة والسائمة من بعيمة الأنهام ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نسابا وما سار على النساب تجب فيه الزكاة بحسابه إلا السائمة فإنها فلا سيء في أوخاسها والنساب في الذهب هو عشرون دينارا أو خمس وثمانون جراما وزكى فيه هي نصف دينار أو اثنتان ونصف في المئة وأما وأما الفضة فالنساب فيها هي خمسة أواخ أو خمسمائة وخمس وتسعين جراما والزكاة فيها هي اثنتان ونصف في المئة والأوراق النقدية فلك أن تقدر نسابها بالذهب أو الفضة وكذلك عروض التجارة وأما السائمة من بهيمة الأنعام فنساب الغنم والمعاز هو أربعون رأسا وفي البقر ثلاثون رأسا وأما الإبل فخمسة, فخمسة إبل ويشترط في النساب أن يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا خنى للمرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن wa saaniyan an yaxuula alayhi alxawlu wa yuxtabaru ibtidaauhu min yowmi milki nisaab wala wala budda min kamaalihi fi lxawli kulli xata falaw naqasa asnata falaw naqasa asna alxawli suma kamula uxtubira uxtubira ibtidaau alxawli min nawxi min yowmi kamaalihi walakin hada sart la yatanaawalu sakata suruuc wa thimaar fa innaha tajibu fihi yowma alxasaad yaqulu subhanahu wa taala wa aatu xaqahu yowma xasaadi ayuha al ixwa